Amis auditeurs, merci. Re-bienvenue dans votre émission Réumi People, notre plateau qui reçoit chaque samedi une star de la musique sénégalaise wala sax euh, mu nekk ci beneen wàll. on reçoit tout le monde dans ce plateau donc euh, koo xamante ni xarañ na ci li nga xamante ni moom lay def nekk ci showbiz bi notre invité du fi gan ñëw na ñëwaat il s'agit de Abdoulaye ñu gën ko xam ci Doolay Prince. donc euh, il est reggae il fait donc ce genre musical tey moom la ñu amaat plaisir recevoir dans notre plateau avant de lui donner le privilège de se présenter ak aussi nuyu ñi nga xamante ne ñoo koy teewlu d'abord euh, parole à Djily mon co-animateur sama vis-à-vis sama xarit bi lu bees. ziar naa la mimi di la bëggee bu baax a baax di bëggee auditeur ak auditrice Rewmi People. Euh, di leen bëgg bu baax a baax tey ñu dalal fi benn ndaanaan ci wàllum reggae euh, Doolay Prince euh, from PA. Mhm. wala nga ni from Africa parce que reggae maa ni moom ñoom teewalul benn saayet ñoom Afrique wóol waa la ñuy teewal wala monde bi sax parce que seen musique ñëpp ko mën a déglu. Mhm. ñu koy bëgg bu baax a baax Doolay fas yéene yaatal ak moom ci projet yi ñu jot a génne yëpp incha allah léegi léegi rek. alors bëgg nañ la l'homme au rasta dans notre plateau. yes merci beaucoup Mimi merci Djily maa ngi big up euh, auditrice ak auditeur réew mi FM yëpp. di leen char di leen jox seen wàccuwaay comme ni koy waxee. di naan euh, voilà ça fait plaisir ma ñëwaat euh, tey si rajo bi pour présenter leen sorti bi ma def yàggul dara jaajëf. d'accord alors euh, c'est vrai que bi nga xamante ni moom la ñu gëj a jàkkaarloo yàgg na yàggul année yi nga xamante ni moom la weesu mais entre temps on a. on a vu et aussi on a observé que l'artiste On touche du bois Doolay a beaucoup évolué et s'est beaucoup bonifié alors ci tunnel yi nga duggoon dafa mel ni dangaa duggoon xalwa <laughs> succès bi macha allah On touche du bois comment ça s'est fait bon euh, je peux dire que c'est seulement le fruit d'un travail acharné ah parce que gars yi gëj nañu ma sax gis bu baax noonu noonu ci média yi parce que dama defoon benn break parce que man damay bëgg su may def communication rek mu doon communication boo xam ne dama koy accès ci benn projet bu ma def quoi. loolu moo tax euh, après l' album euh, source de conscience bi nga xam ne 2016 nominé woon nañ ko victoire du reggae ak yooyu lépp lu si topp dama xawoon def benn break daal di consacré wu waat ci ay études. Mm-hmm. doon def benn master en administration culturelle. voilà après nag ça me prenait beaucoup de temps moo tax ma xawoon jël tuuti recul par rapport au concert live et tout ñu bëri dañu yaakaaroon ne sax dama jëloon recul dama. bàyyi woon pas bàyyi sax mais je me je mhm. mais euh, dama nekkoon ci suuf di job ndànk-ndànk et quand sollicitation yu bëri bëri bari j'ai trouvé le temps de fair un épi. boo xam ne c'est six pour donner ça aux gens yi nga xam ne ñoom ñu ngi may ñu ngi may béggee ñu ngi may suivre depuis depuis lors et voilà EP bi New Breath la nouveau souffle pour montrer un peu facette yu bees yi nga xam ne Doolay am na ko c'est-à-dire ñu bëri nañ ma xamoon ci reggae 100 pour cent mm-hmm. mais soo ñëwee tey ci EP bi amoon na sax prémisse boobu noonu ci sama album source de conscience mais dama ko ñëw gën ko dëggal si EP bi parce que am na sound am na sound reggae am ñu dégloo sonorité yi ñu nekk ci biir gis ne am na benn évolution bu am ci musique bi par rapport à par rapport à à l'arrangement et par rapport à la musique même. Mm-hmm. d'accord alors euh, après source de conscience new breath nouveau souffle donc quelle est la particularité de cet album. Voilà, EP bi euh, c'est un EP. Un EP c'est un, c'est une sortie officielle c'est comme un album mm-hmm. parce que c'est un format de sortie musicale boo xam ne dañ koy wax naan c'est plus court euh, qu'un album mais plus long qu'un single parce que mhm. un single minimum ça doit faire deux morceaux. Mm-hmm. Voilà, de façon officielle quoi. Mhm. Léegi un EP c'est euh, une version de sortie boo xam ne ça n'excède pas 30 minutes. Mhm. Voilà, ça ne ça doit pas excéder. bi ñu bi xoolee on a voulu sortir parce que on avait on a voulu ñu def benn EP boo xam ne y a six morceaux dedans on a fait deux featuring mm-hmm. avec deux euh, je peux dire ténors de la musique urbaine au Sénégal et euh, en Guinée parce que y benn featuring ak Ombre Zion mm-hmm. euh, y benn featuring aussi ak Ali Baba c'est un artiste guinéen que j'ai eu à rencontrer bi ma demee benn festival foofu et alhamdulilah moo tijji EP bi c'est une chanson boo xam ne dañ ci kañ suñu borom mm-hmm. après ça y a lu tax benn wéy boo xam ne dañ ciy laaj lu tax gars yi léegi relation yi koppar moo koy moo koy mooy base bi. Mm-hmm. après ñu jóge foofu ñu ñëw ci yaago yaago mooy la persévérance. Mm-hmm. on appelle les jeunes à la persévérance. yaago yaago c'est un mot euh, susu. yaago mooy bul xaddi. Mm-hmm. voilà et euh, après ça y a mbele mbele avec ombre zayen boo xam ne dañuy ñëw retracer waat un peu le comment je peux dire des le vécu des sénégalais nga xam ne ci wax. la ñuy dëkk su politique bi rombee làmb ji ñëw. football bi ñëw leneen ak leneen gars yi ak commérage yi ak wax baatu ginnaaw yeeg yooyu moo tax ñu def saan boog maak Ambreza yéen mbale mbale mu jógee ci loolu delloowaat njëkkal jigéen ñi euh, ci morceau jigéen et y a un dernier morceau boo xam ne bonus la je peux dire moom mooy lépp si man lépp si man ça t'a pris combien de temps pour euh, la réalisation Bon, ça m'a pris pas, ça m'a pris beaucoup de temps parce que je peux dire que maintenant je, j'enregistre, je, je, je, je mixe, je masterise, je technicien son en même temps. Mm -hmm. euh, voilà et même de may génn école des arts sax sama mémoire de recherche dama ko defoon ci musique assistée par ordinateur j'ai eu à former des techniciens. Mm-hmm. du coup am na lu ma ci xam quoi moo tax ça me prend, prend pas énormément de temps mais def naa ci aussi ay collaboration parce que am na ci ku mel ne Pisco Dawes moom nga xam ne léegi il est basé euh, à moom def na si touche ci morceau Yaago par exemple il aussi Easy Laylee Music aux on a travaillé dessus et voilà man noonu la collaboration yi yenn yi maa koy defal sama bopp yeneen yi aussi pour ne pas trop euh, monopoliser man sama sama musique dama koy ubbi. Mhm. comme ça ñeneen aussi indi si seen touche quoi comme ça mu gën a nice. Mm. très bien alors Doolay on voit que aussi ces derniers temps. on a beaucoup de nouvelles de toi bokkoo ci artistes yi nga xamante ne entre guillemets ils sont aphones ou mm-hmm. peut-être on n'a pas de leur nouvelles mm-hmm. qu'est-ce qui s'est passé da nga améliorer sa cellule de com wala staff sa sa gën a defaraat ou bien bon je peux dire que ne loolu euh, mooy li ma doon wax sànq rek xam nga ñu bëri dañu ma doon sollicité. Mhm. pour ay ay pour émission wala ay affaire parce que ñu bëri dañu doon yaakaar ne bon j'étais en retrait wala sax nekk ma fi mais dama man je veux dire chaque chose à son temps ah. su may def communication damay bëgg mu doon par rapport à un projet par rapport à une sortie moo tax da gis ne sama communication dañ koy dañ koy étaler quoi de telle sorte que dafay toppante mais su fekkee par exemple dañ woo gauche woo droite nga ni ko gars yi ni may tooñee yenn copains artistes yi ma ne man je suis pas de ce genre quoi man j'aime bien su may def sama communication mu doon sur un projet bien défini nga xam ne gars yi au moins mhm. am na solo li mu fi jot a expliqué yëpp mi mi ñu koy bëggewaat bu baax baax euh, victoire de reggae boobu laa bëgg mu ñëwal ñu si tuuti mhm. euh, nu mu demee woon parce que tout le temps damay faral di dégg mu koy tudd victoire de reggae affaire yooyu mhm. ñu bëgg comprendre loolu naka la demee waaw. au fait euh, en France euh, y benn structure boo xam ne ñoom euh, ils font dans le reggae c'est une structure bu mag boo xam ne ils ont même un site qui s'appelle reggae.fr euh, chaque année dañuy def victoire du reggae parce qu'ils se sont rendus compte que ne y a les victoires de la musique en France victoire de la musique dañ ciy convoqué par exemple style de musique yu bëri mais la plupart reggae dañ koy bàyyi ginnaaw léegi nag ñoom ils ont créé mooy genre boo xam ne chaque année dañuy xool par rapport ak catégorie yu bëri am na meilleur album reggae européen par exemple meilleur album reggae africain meilleur EP meilleur whatever dafa am yu bëri parce que ñoom ils sont au fait ils sont au courant de tout ce qui se passe en sortie ci ci ci ci ci àdduna bi mm-hmm. léegi ils font des séances d'écoute et ils sélectionnent les les meilleurs je mm-hmm. peux dire kii par rapport ak ñoom ni ko gisee. Mm-hmm. léegi ñu def ay vote à travers les réseaux sociaux. Mm-hmm. après bon ki ëppale vote jël ko mais man ah, malheureusement année boobu noonu en 2016 heureusement ou malheureusement je peux dire y avait euh, Tiken Jah qui avait sorti un album il y avait euh, Alpha Blondy qui avait sorti un album Tiken Jah Fakoli finalement moo ko gagné woon mm-hmm. man j'étais à la troisième je pense troisième quatrième place. et voilà ça m'a donné pas mal de de de d'exposition médiatique gars yi gën a xam. xam kan mooy Doula ak yooyu noonu mais c'était une consécration parce que album boobu noonu je l'ai fait presque avec mes propres moyens. Mhm. avec ma propre structure et mu valoir ma satisfaction boobu moo à chaque fois damay damay du reggae est-ce que reggae en tant que genre musical ñu ngi koy comme il faut au Sénégal. Euh, am na ay reggae fii ay plateau yu gars yi jéem a def ndànk-ndànk mais reggae Sénégal li ko xaw a soxal tuuti mooy la production. Mhm. parce que man par exemple quand j'ai fait ce constat dama ñëw ba ne xaaral léegi je vais créer ma propre structure boo xam ne man dinaa si mën a produir sama bopp. xoolaale sax produit Warasil ñeneen parce que j'ai j'ai j'ai collaboré ci ci j'ai participé je peux dire si si projet yenn artistes yi nekk fii nii que ça soit pour le reggae le rap wala whatever musique urbaine en général musique actuelle yi et voilà mu ngi noonu par exemple am na compilation yoo xam ne dugal naa ci sama loxo am na artistes yoo xam ne ñuy génnee seen i seen i EP wala seen i maxi wala nu ñu koy mën a tuddee j'ai j'ai participé et voilà man noonu laa gis parce que talent rek moom mooy yëngal quoi mm-hmm. voilà talent la yëngal mais il y a des gens aussi d'autres gens qui bi nga xamante ñoom tamit ñu bëgg a def comme genre musical bi ngay def peut-être ils n'ont pas chance bi nga am yow peut-être am sa label wala am sa groupe de musique est-ce que ces gens-là tu penses que tey jii ils ont leur chance est-ce qu'ils peuvent persévérer oui euh, normalement parce que xam nga lan mooy def mouvance xam nga lan mooy def euh, structure musicale xam nga lan mooy def industrie musicale mooy ku nekk ci côté bi nga nekk nga jéem a parce que musique dafa laaj investissement. musique par exemple man loolu laay wax par exemple am na benn euh, label bu ma doon joobal c'était label indépendant en Suisse on avait fait un morceau bu tuddoon Babylone en 2013. Mm -hmm. voilà et ñoom dañ loolu lañ ma doon wax ñoom sax ñoom ma si gën a ñaax ne ma du laa essayer de trouver une structure à pour te produire parce que ñoom dañu créé woon benn label indépendant bu tuddoon Dëkk Production mais soo xoolee ñaari frère lañ mais ku ci nekk yaa ngi sa job ci côté bi. Mhm. kii da doon jàngale kii dafa nekkoon ci yeneen affaire pour mu ne ñu ne ma musique ñun ay musiciens lañ ay artistes lañ dañuy def musique dañuy def ci festival yi lu nekk mais en même a un boulot à côté man loolu laay ñaax gars yi fois qu'ils trouvent un un ci côté bi comme ni ñu koy waxee si lamb ji par exemple. parce que mm-hmm. musique bi c' pas à plein temps du chaque instant ngay mën a. am mm-hmm. yenn possibilités yi. Mm-hmm. léegi nag ci période yi nga xam ne mooy loolu période de vache maigre comme on di nga am ci loo jàpp.

comme ça gars yi mën ko déglu nga am ay critique retour yooyu noonu moom mooy tax nga évoluer mhm. am na solo mais Doolay moom lan la booleeg musique bi ban genre métier lay def professeur wala lan Doolay lan la moom sa <laughs> que yaa ngi soññu gars yi naan nan ci boole dara yow loo ci boole lan waaw parce que man en même temps euh, je suis professeur de musique à la maison d'éducation Mayamba bu Gorée. voilà man maa ngi jàngale foofu depuis 2011. Mm-hmm. Euh, parce que man noonu laa évolué ah. man quand je je je bi may def sama formation dama xawoon mettre sama sama carrière je peux dire euh, en stand-by. en stand mm-hmm. def sama formation ba pare génn nag daal di ne léegi comme que acquérir naa ay bases yu solides ci musique léegi nag mën naa commencer di génne quoi parce que man noonu laay noonu laay kiiwee. loolu laay wax gars yi job yëpp baax doon na doon job boo xam ne na la permettre au moins nga mën a. arrondir les fins du mois et que tu puisses investir dans la musique parce que su fekkee par exemple kii teg na benn structure benn kii teg beneen structure kii teg beneen structure structure bu yàggee rek structure yi bu bëree loolu mooy yëkkati musique bi quoi. Mhm. yes d'accord euh, à l'école Mariama Ba tu donnes des cours de musique. Mm-hmm. les ressources yi nga fay est-ce que c'est suffisant pour alimenter li nga xamante ni mooy sa côté musical bi tes réalisations musicales tes tes prestations scéniques ça suffit ou bien t'as d'autres euh, moyens financiers bon xam nga man moom à chaque fois <laughs> mooy li ñuy wax rek man euh, damay bëgg avoir le sens de l'entrepreneuriat c'est-à-dire mm-hmm. man su ma gisee benn parce que euh, j'ai monté aussi des des des des studios d'enregistrement Euh, parfois yenn nit ñi bu ma sollicité pour des pour des matériels de musique waaw je peux leur avoir ça des choses comme ça man duma ma bàyyi quoi man à chaque fois sama temps duma ko perdre ci loo xam ne bon ça ne me ça fait pas avancer à chaque fois dina jéem ma def benn affaire boo xam ne dina ma mën a dina ma mën a jëriñ ko je peux dire dina ma mën a tax ma teg benn jéego pour aller de l' mhm. loolu moo tax finance affaire bi du finance rek parce que am xaalis. Mhm. man tey par exemple am naa benn benn jiil yi naa benn miim yi am naa beneen moo ma gënal ma am alal ju dul jeex. Mhm. parce que soo amee alal aussi te amoon nit ñi loolu sax amul sens quoi. musique Sénégal nee nañ alal moo koy def de. exactement vous êtes d' accord. ouais je parce que ça demande énormément de de de de dafa laaj nga def ci xaalis bu bëri parce que la communication. Euh, waxuma la communication sax mais defar son du début à la fin rek xaalis la nga mm-hmm. jógee ci loolu nga def sa clip nga jógee si loolu clip bi sax ci biir le port vestimentaire et tout il faut soigner euh, sa présentation soigner sa image yooyu noonu yëpp sa demande énorme énormément d' argent pour te dire que ni musique moom showbiz dama ci doon wax démb rek ak benn copain mm-hmm. ma ne ko euh, par exemple euh, léegi gars yi damay dégg benn amalgame gars naan mu naan naan musique commercial ak musique xaw ma engagée xaw ma voilà affaire ñëwaat tamit ci cinéma da dégg ñu ne la cinéma d'auteur ak cinéma commercial. cinéma commercial mooy le cinéma hollywoodien cinéma d'auteur mooy cinéma yi nga xam ne comme ñoom Sembène wala whatever nga xam ne day conscientiser. Mm-hmm. mais même bu fekkee da def une musique boo xam ne ça conscientise ça demande des fonds dafa war a am tamit benn volet commercial. Mm-hmm. boo xam ne da nga ko nga xam ne di am retour sur investissement parce que ça et loolu noonu yëpp dañ ko war a penser quoi dañ ko dañ si war a xalaat dañ si war a liggéey. Mhm. et man aussi j'ai eu la chance euh, de faire une formation dans le domaine de de l'administration culturelle boo xam ne daf may jëriñ lu bëri ci sama musique quoi. Mhm. mais Doolay suñu suñu émission tam day am yu xumb de pourquoi indiwoo sa guitare bi. <laughs> waaw guitare yi waroon na ñëw ah bon mën nañ def benn affaire ak acapella voix bu nice rek. moi j'aime bien ce son je l'écoute en boucle xam man sa fan la. <laughs> alhamdulilah alhamdulilah oh oh my lord. est-ce que tu peux nous en faire un petit acapella. <laughs> ok ñu dem euh, ci oh my oh lord alhamdulilah. Mm-hmm. thanks to God to the Lord to Allah. Thanks and praise to the Most High Jah. You are the one and only, the Almighty, the glory. Forgive me all my sins. I'm really sorry. Thanks to the Lord for being mankind. Thanks to God for seeing the sunshine. I give you my soul, my body, and my mind. God Jah Allah, thanks all the time. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dundu ci tawhid, di nitaw Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dundu ci tawhid, di nitaw Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. God is the greatest, the famous Ya Karim. awalu akiru zayiru batinu ya Allah muril ñu kiiraay nga gindi ñu yesaay. <laughs> d'accord léegi yow sa texte bi bi nga ko yaa ko bind déjà. waa texte bi je peux dire que ne c'est la première chanson boo xam ne def naa ko boo xam ne bindu ma Mhm. qui l'a écrit voilà c' écrit par euh, un un de mes condisciples sama benn jëwriñ Ousmane Lo la tudd mhm. il m'a donné le texte euh, mu jox ma texte bi vrac ne ma lii dama bëgg nga woy ko ma ne ko mhm. ok dinaa ko woy ci laa ko jël Euh, quelques retouches laa ci def rek def si refrain bi euh, ñu def musique composé ko après j'ai enregistré ça rapidement quoi. Mm-hmm. mais sound bi sound bi boo koy déglu da nga xam ni gan gi dafa spirituel. Mm-hmm. Ousmane Lo mi la ko jox moom it est-ce que yéen a bokk lu ngeen di dund. Mm-hmm. xanaa da ngeen bokk wasila wala dara parce que son bi boo koy déglu da nga xam ni gan gi am na fu muy naanee ko yes xaw ma nu ma ko déggee xaw ma nag mimi. yes <laughs> non son bi dafa spirituel parce que dafa c'est c'est profond parce que cant la suñu cant la suñu borom et aussi eh, utilisé la langue anglaise. pour pour pour pour que mu am benn touche bu internationale et je vois je pense que mhm. Ousmane sama jëwriñ la sama mbokk taalibe la maak moom ñoo bokk fu ñu naanee muy suñu wasila di Cheikh Moussa Cissé Ndiame borom daaru mhm. et moom Cheikh Moussa Touré moom mooy sangam sama sang mooy Cheikh Aliou Cissé ibnu Cheikh e je pense que ñun ay Baye Fall lañ quoi voilà ñun Baye Fall lañ parce que ci ke Cheikh Moussa ci keppaaru Serigne Touba la doon woote mm-hmm. et voilà loolu ci lool lañu la nàndal ci kalimatu laa ilaaha illallah ñu sikkar fikkar ba am tawxiit ni ñu koy waxee mm-hmm. et ça nous permis ñu am benn ndëgër laay par et benn spiritualité boo xam ne day daw si ñun quoi mm-hmm. Doulaye on a comme l'impression que tu es un soft mm doux mm -hmm. de nature comme ça ou bien waaw man nag bon je suis euh, je peux dire euh, ça dépend de mes de mes humeurs. même et... sur scène tu es comme ça. non waaw non j'imagine ah. non sur scène je suis une autre personne. <laughs> sinon parce que <laughs> sinon ñi lay seetaan. non sur scène je suis une mm. autre personne. xam ah, je suis une personne nag euh, je peux le dire très réfléchie quoi. Mm-hmm. man moom su may def benn affaire su may def benn mbir je peux je veux le maximum de concentration. Mm-hmm. Mm-hmm. mais sur scène je suis une autre personne. c'est l'artiste qu'on voit sur scène. t'es une autre personne tu es déchaîné ou voilà déchaîné <laughs> ñëw ñi ñëw di seetaan sama concert laa ñu ciy bëri dañuy yaakaar ne dafa am lu ma laal wala lu autre beneen nit la ñuy gis quoi mm-hmm. jaññi bu tasaaroo tasaaroowee nga gis dulaay di wéy di am daneen lu muy mel day mel ne voilà à chaque fois dama leen di sentir ils sont même euh, un peu euh, dañu xaw am lu leen bett quoi et mm-hmm. c'est ça parce que man c'est la scène qui me fait vivre quoi. Mm-hmm. tu as toujours rêvé d'être artiste. bon c'est venu naturellement aussi maanaam parce que amul je pense sama famille kenn ku si nekk artiste. Ah waaw non je pense amul. man man daal euh, bi ñu nekkee à l'école ci la ñu commencé entre copains def rap comme ñu ñëpp commencé. Mm-hmm. affaire yooyu créé woon benn groupe de rap. après fibre bi dugguma quelque temps après j'ai j'ai j'ai voulu euh, me lancer en solo bi suñu groupe tase mm-hmm. noonu la ma toppee ah après loolu ma ne bon man après le bac au lieu yi di suivre ay formation ay management sama comme yenn frères yeeg sœurs yi man je vais faire une formation artistique noonu la ma dikkee quoi. t'étais rappeur au temps kon. waaw jot nañ def rap mais man à chaque fois man maa daan téye suñu refrain yi man maa ci daan wéy yenn saa yi daan naa am ay carte wala. da doon sol huit bar waaw comme ni ko gars yi doon sol. <laughs> mooy jamono bu njëkk ba ñaari <laughs> mais man nag bon man je peux dire que ne man ci. presque ci new generation bi laa bokk parce que loolu c'est mhm. dans les années 2000 quoi man bokk ma ci année 96 yeeg ni ko gars yi waxee. <laughs> gars ñu si bëri ay année 2000 di ko yóbbu ay 80. waaw non nag moom franchement man même laa jëkk def sama sound reggae la woon. Mhm. suñu groupe yeeg yooyu bi ñu koy créé c'était en 2003 l'école di jàng quoi. ton groupe il s'appelle comment. Euh, Doula and the Soldier. sama groupe euh, bi nga xam ne moom laay joué. Mhm. ça s' appelle Doula and the Soldier. parce que mhm. j'ai un groupe boo xam ne ñoo may bakkee su may joué. et ça prend le nom de Doula and the Soldier. mais est-ce que Doulaye mi ngi mi ngi faral di tëgg yenn saal yi mel ni jaspo yu. Mhm. yenn saal yi nga xamante ni day def ay block party affaire yooyu noonu. est-ce yaa ngi ciy faral di joué. waaw je pense que Just For You sax sama kër la woon ah Just For You anytime dama fa doon joué ay blues sax tourné naa fa nekk ak sama groupe on a joué beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de concerts. Mhm. et euh, man comme ni ma waxee c'est la scène qui m'a fait vivre et su ma toogee lu yàgg joué wu ma sax def ma ay yenn concerts les séries de concerts du ma nekk quoi. voilà Just For You gars yi dañ ne woon dañu nekk en rénovation mhm. léegi am na benn euh, bu ñu bu play club déjà aussi. am na benn euh, resto boo xam ne si dañ ko doon rénover sa ça a ouvert euh, récemment ci fin fin décembre bi. Mm-hmm. et bon je suis en train de discuter avec eux. pour euh, parce que ñoom lañ man lañ jox programmation musicale bi foofu. Mm-hmm. on est en train de faire des aménagements te je pense bien que foofu dinañ fa mën di jouer presque chaque semaine wala maximum chaque deux semaines. mais reg party yaa ngi participer. waaw de temps en temps gars yi ma ci ay ci ay ci ay reggae party ci ay mic open comme mhm. sound system yi gars yi def ma ñëw def euh, version sound system comme ni ñu koy waxee mhm. euh, sans ñëw indi sama rudim par rapport ak sama sama sama projet après ma ñëw def benn showcase sound mhm. system dama koy def Doolay ok benn une minute mais Doolay lu tax nga jóge ci ay album dali ci EP yi loolu est-ce que baax na ci artiste nga njëkk ñu jox album joxaat ñu album euh, ñuy xaaraat beneen album laay wàcc loolu est-ce que baax na ci euh, artiste. non je peux dire que ne loolu loolu loolu gars comme ni ñu koy faral di waxee benn benn amalgame la rek bu gars yi def parce que EP c'est une sortie officielle. Mm-hmm. ok c'est une sortie officielle comme ni ma ko waxee woon sànq c'est un format de sortie musicale. Mm-hmm. voilà EP presque je peux dire album là mais c'est un format réduit parce que je me suis rendu compte que ne boo defee le maximum de titres aussi gars yi dañu am ay quelques rek yoo xam ne moom lañ ci gën di déglu. moo tax j'ai voulu réduire le format par rapport à mon à mon album nga xam ne sa faisait dix huit titres plus de de de de comment dirais-je. boobu day liggéey. voilà mais léegi moom <laughs> <laughs> non maa ngi maa ngi job non pas amatuma temps sax loolu damay dégg gars yi ko tooñee Youssou Ndour naan léegi Youssou Ndour amatul temps moo tax vite fait day def ay affaire la génnee non mais c'est pas ça. Mm-hmm. Euh, c'est pas ça loin de loin de moi parce que tey. musique bi foofu la toll da ngay gis ñoo xam ne sax ci single rek la ñuy def mm-hmm. mais EP même aux États-Unis et partout dans la musique urbaine en général bon ça sort euh, musicale la mm-hmm. et gars dañ koy wax naan c'est plus long qu'un single mais plus court qu'un album format rek mm-hmm. parce que nombre de minutes bi mooy différé rek ak euh, nombre de tracks yi nekk si biir mais c'est comme c'est un album am c'est une sortie mais man e bi bu mu ko dégloo Doolay par rapport ak Doolay bu njëkk bi ñu jox reggae bu waaw kong bi ak EP bi Doolay est doon ji kat quoi Zaga Dulaay sa sa kii bii mooy loolu de dafa xaw a dafa xaw neex quoi dafa xaw a génn rek tuuti. non je peux dire que génnul rek mais c' est plutôt euh, la tendance actuelle ah. parce que soo xoolee par exemple euh, lu tax lu tax euh, sound boobu ya dama. xaw a jël tama c'est un instrument traditionnel parce que man j'ai l'habitude de le faire même euh, pour le premier album y avait la kora y avait j'aime bien valoriser les instruments mhm. traditionnels dama jël tama au lieu may jël guitare def ko solo mhm. j'ai fait un solo euh, de tama mhm. euh, def benn dialogue aussi ak tama beeg voix yi et c'était purement affaire d'arrangement quoi pour oser un peu mais il y du dancehall il y a de l'acoustique. Dancehall, c'est c'est un démembrement du reggae quoi. Mhm. C'est le petit frère je peux dire du reggae. et je pense que ci cadre boobu laay surfé ba léegi génnuma ba léegi si cadre reggae bi et aussi Lucky Dubé da ko doon wax mu ne. you can change the rhythm of playing reggae. Mhm. you can change the style of playing reggae but never you can change the message maanaam mën nga changer style bi ngay defee reggae euh, mais mënoo changer message bi mm-hmm. c'est message qui est le plus important dans le reggae d'accord alors Doolay de grandes salles comme euh, des salles yoo xamante ne c'est célèbre comme les grands théâtres ak yu mel noonu pourquoi on sent que les reggaemen n'osent pas mm-hmm. affronter mm-hmm. plus ou moins privé avec peu de monde di fréquenter foofu noonu kese pourquoi. bon je peux dire que ne loolu aussi c' est un choix hein, que soo xoolee. Euh, reggae c' est ton choix toi. non c' pas mon choix mais reggae euh, soo xoolee même soo xoolee festival yi gën a mag ci àdduna bi reggae festival de reggae yi la. et tu mhm. vois des milliers de personnes yoo xam ne dañuy ñëw di ko assister. Mhm. man quand j' étais Guinée par exemple concert bi ñu defoon c' dans un stade. ñu def ko foofu voilà ñu def ko foofu c'était bien gars yi ñëw fees dal stade bi c'était nice mm-hmm. comprendre nga Euh, je dire que ne euh, ne damay jouer grand théâtre benn 2000 personnes wala yooyu ak gars yi ni ñuy jouer grand théâtre loolu ça ça ça n'amène pas la musique euh, quelque part parce que la plupart gars yi ñuy ñëw tuddee ko benn 100 personnes ku nekk am lu la jox. Mm-hmm. wala sax ñu jëndal la ticket nga maye ko. Mm-hmm. gars yi ñëw nga ne feesal naa grand théâtre rien que pour turu loolu ci sama sama carrière par exemple sama plan de carrière man gisewuma ko noonu. Mhm. on va faire ça on va faire euh, des des des des comme grande salle comme ni ñu koy waxee mais je pense que grande salle du de du deux mille personnes. Mhm. mais parce que on a l'ambition de faire plus que ça. def ay yeneen affaire yoo xam ne mooy loolu mais reggae aussi Sénégal dañ nekk dëkk boo xam ne dafa am d'autres musiques yoo xam ne ñu ngi fi reggae bi day buuxanteeg ñoom. Mm-hmm. du coup da gis ñu bëri sax dañuy exilé wu génn dem à l'étranger pour ngir a am plus de de possibilités quoi parce que Sénégal fii gars yi brèche yi ñu ubbil reggae bariwul mm-hmm. émission yi bëriwul noonu on n'a pas trop de médiatisation. man par exemple samay vidéo gars yi dañ koy mais il beaucoup d'artistes qui sont très talentueux yoo xam ne presque on les voit pas sur les sur réseaux euh, ci médias yi. Mhm. et loolu c'est c'est déplorable. je pense que suñu créé woon benn gën a créé benn mouvance ci reggae euh, reggae dina mën a def yooyu noonu yëpp créer des festivals créer des choses et je pense que loolu lool loolu dina jëmale kanam reggae music mais instant bi ni reggae music fi Sénégal dafa xaw a. Mhm. dafa xaw a parce que. la faute bon du sax du sax reggae bi c'est c'est c'est pas seulement sax spécifique au reggae mais mm-hmm. soo xoolee même la musique en général au Sénégal instant yii nii dafa dafa am problème c'est en crise parce que mais yéen mbalax maa ne ñoo leen gën a am buzz ci de. waaw parce que ñoom euh, ils des plages euh, horaires yoo xam ne ñu leen ko aménagé di leen fa teg en boucle. Mm-hmm. xam nga musique lépp loo gis communication boo gis tapage la. Mm-hmm. tapage maanaam foog chaque instant gars la déglu la déglu. On ne peut pas faire ça parce qu'on ne donne pas les possibilités. On ne donne pas les émissions. On ne donne pas. Parce que reggae aussi, il a quelque chose bu si nekk reggae c'est un message boo xam ne c'est un message de vérité quoi. Mm-hmm. te ñu bëri Sénégal ñu bëri Sénégal li reggae di wax arrangé wu leen par exemple am na benn jour maa ngi toog nii ak sama benn grand. mu déglu sama sound gestul waa réew mi déglu sama sound Babylone dar gémmiñ gi ne ma saa yow li ngay wax nii lii boo changé wul doo am xaalis de gestul waa réew mi instant ñu ngi naan président gestul waa réew mi. sa biir campagne danga ñu waxoon ne soo faloo lépp dina mën a ne ñu am yaakaar ci yow di tëbëk a daw naan mbir mi yow la ba faw ndeke président ama ah du coup euh, ñu ngi am benn affaire boo xam ne ñu ngi koy wax politicien di leen fàttali seen promesse yeeg yooyu du coup imagine toi on t'invite quelque part boo xam ne ministre day toog def naa ko man ministre day toog keneen day toog dem naa si benn benn benn euh, tournée bu ma doon def ma ñëw fekk le maire la bas mm-hmm. ba Euh, kii lañ taaloon quoi benn euh, groupe électrogène. Mm-hmm. ma ñëw ma ne gars yi ma ma ma jël mi ma jëlee micro bi may commencé dama ne euh, maire bi saway waay fexeel lii nga saafara ko gars yi dañu war a am courant ay nit lañ. am nu de façon très diplomatique mm-hmm. ak de façon ak benn dose d'humour sax ma waxtaan ak gars yi moom affaire yooyu noonu ñu reykaf mm-hmm. mais jaarale naa sama message. Mm-hmm. parce que reggae loolu la aussi reggae cëslaay bi message la te message boobu parfois aussi gars yi duñ ko mën a duñ ko bëgg di dégg ko reggae moom musique dëgg la quoi sa dëgg moom foo ko fekk day wéet. boo xoolee hip-hopeurs yi dañuy wax dëgg. mais ba tey. hip-hopeurs yi boo leen laajtee sax ñoom ku ci wéet reggae ngay déglu. Mhm. c'est que reggae moo leen di faj. Mhm. Eh, reggae man reggae man reggae ko mën a faj. Mhm. war nañ leen jàppale wutal leen ay émissions ci rajo ko boo demee Guinée dëkk bu mel ni Guinée. reggae bi dafa am doole ay Côte d'Ivoire. ay Mali gii nii rek respect lañ ko fa am. reggae musique dëgg la na leen gars jàppale comme Doolay talent bi ci moom tey. bu fekkoon beneen dëkk la dëkk waxatuñ ko. mu dem teewal Sénégal dem jël troisième si ñi nga xamante ni ñoom. Mhm. Tiken Jah Fakoly ñoom Alpha Blondy loolu saa yi du lu ndaw ko mhm. ane boobu man su ma ko doon nommé homme de l'année nga koy def parce que année boobu moo nekk règlement bu gën a taxaw fii mhm. Sénégal. mais Doolay est-ce que gis nga sa bopp si musique bi ngay def. parce que jël troisième euh, fii Afrique meilleur règlement. Euh, comme Sénégal xam naa ni yaay nekk année boobu première. année boobu naka la la gars yi accueillir seen jibbi si. wala bi ñu yëgee trophée yooyu. noo ko dundee. <laughs> bon loolu de je pense que euh, c'était bien parce que j'ai j'avais fait une communication. par rapport à ça apparemment avec une valise remplie. <laughs> non même pas même pas li ma si gën a am daal moom mooy mhm. reconnaissance. Euh, la reconnaissance et euh, l'exposition surtout médiatique. ak tamit ñu bëri ñi nga xam ne ay parce que j'ai j'ai eu à collaborer à participer ci ay compilation après nomination boobu ci ay rythmes comme on dit des rythmes ñoo xam ne génn sur l'international ñoo xam ne y a de grands noms du reggae yoo xam ne posé nañ ci man am naa ci son. ay Africa Rise Up Music for Charity j'ai beaucoup de choses yoo xam ne def naa ko réalisé naa ko après nomination boobu ak yooyu parce que ñu bëri ci lañ ma découvrir ci lañ ma contacter ci la ñu essayer collaborer avec moi par rapport a des chansons et cetera mais financièrement comme ni Djily di di wax ni bon ça va peut peux dire que ne xam nga moom kenn mënu ko natt euh, musique kenn mënu ko natt kenn mënu ne musique mu may fay à cent pour cent wala à deux cent pour cent parce que mhm. li lay li lay li lay motiver ci booy def musique à la base moom mooy passion bi ak amour bi. Mhm. léegi nag li ci des rek bonus lay doon quoi. d'accord alors amis auditeurs je rappelle que nous sommes avec Doolay Prince l'artiste reggae man tey moom la ñuy dalal ci émission Rewmi People waaw Doolay Prince moom ku la ko tuddee. xam nga Doulaye Doulaye c'est le diminutif de mon nom Abdoulaye. voilà le prince. loolu ci benn euh, compilation mu bokk benn rudim. Mhm. mooy mu tudd léegi nii Africa Rise Up Music for Charity ki ko coordonné woon euh, elle s'appelle Christelle Christelle Kroul. Mhm. Euh, ñu naan ko Fire Roots moom moo doon manager Tiken non Alpha Blondy ay temps moom moo doon booking manager woon. dafa doon def benn rudim après ci la ma contacté ma posé si mu envoyé ma rudim bi ma def studio rapidement daal di ko envoyé. daf ko déglu rek yuuxu ne ma you sing like a prince you have a nice voice ah, you sing like a prince mm-hmm. take the prince like your name of artist mm-hmm. you are a prince of reggae mm-hmm. mu ne loolu nag topp ma ko après gars yi après bon on a pris Doulaye bi gars xam nañ ko ba pare après ñu jox Prince. yes d' accord alors Doulaye 2017 euh, nga gëj suñu plateau. tey macha allah ñu toogaat euh, di waxtaan yàlla na jàmm yàgg. amiin ñu dund ba di ko def ay ati at alors entre temps quelle est quelle a été ta plus grande réalisation. bon sama réalisation je peux dire que ni moom mooy euh, euh, voilà mooy lii nii ah je peux dire. Euh, mm-hmm. finalité wu boobule ñu ngi def musique am nañ ci reconnaissance am nañ ci respect. Mm-hmm. surtout de nos pères. Euh, gars yi aussi ñu ngi ñuy xam ñu ngi ñuy découvrir ñu ngi découvrir suñu musique ñu ngi koy bëgg ñu ngi koy déglu je pense que loolu noonu la artiste am su fekkee ton message même su fekkee dix personnes ñoo koy dégg sax loolu satisfaction la parce que am na looy looy looy si ñoom mm-hmm. je pense que loolu rek euh, réalisation la boo xam ne bon def nañ ko suñu toogoon suñu coin rek peut-être li ñu toqal seen nopp loolu du fa yegg e que loolu rek euh, satisfaction la satisfaction personnelle mm-hmm. mais bon réalisation je peux dire que ñun ñu ngi si affaire yu bari ah. ñu ngi si ñun moom nous sommes des touches à tout Mm-hmm. voilà par rapport à la musique on fait des chose choses euh, ñu ngi jàppale yenn artistes yi ñun on s'autoproduit alors que s'autoproduire c'est pas facile mm-hmm. et je pense que voilà réalisation moom mënuma ko natt fi mu toll fi mu toll nii parce que mm-hmm. voilà man je suis pas trop trop trop quantitatif mais je suis plutôt qualitatif xool qualité mais pas quantité quoi voilà mais réalisation moom instant yi nii ci phase de de boobu lañ nekk ñu ngi ñu ngi doogaay door comme ni ñu koy waxee <laughs> bon bëri na comme j'ai dit j'ai eu à participer ci yenn festival j'ai eu à jouer ak ñenn ñi j'ai eu à faire les rencontres des collaborations mm -hmm. loolu aussi ça m'a ça m'a beaucoup marqué euh, j'ai eu aussi instant si benn projet boo xam ne c'est en cours ak benn studio euh, Judex studio ñoom ils sont aux États-Unis euh, on est en train de travailler sur une sur une sortie d'un projet boo xam ne c'est 100 cent reggae roots je peux dire mm-hmm. on y est mollo réalisation yi moom c'est toujours en cours parce que man noonu laay je je ouvrir brèche yu bëri nag après par rapport au temps et par rapport ak euh, exigence moment bi rek ma jël yenn yi ci nit ñi yeneen yi nekk en suspens quoi. Mm-hmm. souvent ñi ngay defal featuring ils sont exclusivement reggae non pas forcément pas forcément parce que man da loolu dama koy wax sax ne musique sénégalaise li mu gën a soxla moom mooy collaboration. ak mhm. gars yi di def di demalante. parce que je pense que musique sénégalaise amoon élan bu baax bu mu amoon. mooy dans les années quatre vingt euh, quatre vingt jëm quatre vingt dix un peu. Mhm. parce que da ngay gis ay ñoom xalam ci lañ judd woon ci lañ ci lañ nekkoon ay ñoom jamono ay Touré Kunda ay yooyu noonu ak euh, sax euh, yenn maada yi fi nekkoon. Mhm. arrangement yi leen dem si yàlla Cheikh Tidiane doon defal la ñoom Manu Lima da gis musique sénégalaise dafa amoon di ko di ko mu leen di arrangé loo xam ne di jëmale kanam musique mais léegi Sénégal tout le monde est arrangeur tout le monde est compositeur mm-hmm. moo tax suñu musique xaw a mais la collaboration entre artistes moom loolu dafa war a am mm-hmm. parce que soo gisee par exemple DJ Awadi dem xëcc benn Ndiaga Mbaye woyloo ko ci Mhm. loolu ça veut dire que ne musique te te te Ndiaga ñu bëri mënoon nañ dund ba dee jeunes yi nii duñ ko xam. Mhm. avant muy gaañu mais loolu da ko def ci la koy jeunes yu bari xamee. pour dire que ne collaboration ak yooyu noonu moom mooy jëmale musique tey par exemple naa def featuring ak benn benn parce que loolu day jëmale kanam que te sentirais soo xoolee par exemple euh, musique moom c'est universel. Mm-hmm. parce que collaboration featuring. li ci gën a am solo moom mooy ku ci nekk sooy ñëw da ngay indaale sa style. style yooyu noonu di di mélanger wu métissage boobu noonu di am loolu noonu moom mooy moom mooy intérêt wu mbir mi parce que euh, ku ci nekk am na ñoo xam ne par exemple ñu ngi lay bàyyi xel ñu ngi lay bàyyi xel dañuy bàyyi xel aussi beneen artiste bi. par exemple bi ma defee featuring ak Ali Baba en Guinée ci la ma yenn gars yu bëri en Guinée gën a découvrir man tamit à chaque fois su may teg sound bi wala nit ñi di ko déglu dañ ma naan gain booy bi kan la. Mhm. affaire mën na sound te loolu moom mooy jëmale kanam musique mhm. man je dis pas non aux na doon ci cadre bu nice rek et voilà ko parce que Sénégal da ngay dañu xaw a réticent non bëgguma def featuring ak parce que diw dafa aay. Mhm. dañ naan moom moomu dàq wëy wala non faut pas penser comme ça faut penser ku nekk da ngay ñëw ak sa touche personnelle ak sa mhm. loolu noonu moom mooy def jëm moom mooy jëmale kanam musique bi quoi. le niveau de consommation de yow ta musique principalement tu en es satisfait. Bon, je peux dire que je suis plus je suis très connu dans le milieu du reggae au Sénégal. Je peux mm dire que gars yi nga xam ne dañuy def reggae fi je peux dire que ils me connaissent. Mhm. De ce côté-là man je aw ma si ma si ragal. moo tax nag on a voulu s'ouvrir à un autre public. ci lañ def par exemple projet bi. Mm-hmm. s'ouvrir à un public. par exemple il a la semaine dernière on était sur un plateau boo xam ne c'est avec le son alhamdulilah lañ fa demee c'est c'est quelque c'est un plateau boo xam ne ñi koy déglu c'est un public mature. Mm-hmm. benn jour dox naa ci semaine boobu noonu ba si yàgg rek benn benn mag la quoi. daal di ma ñëw gis ma ne ma yaa nekkoon keroog euh, RTS ma ne ko waaw mu ne ma non si son bi dafa nice affaire ñu échanger ça veut dire que ne kooku il a il a commencé à me découvrir mm-hmm. et euh, oustaz bi nekk suñu école aussi la même chose il m'a dit ça et il a am na ñu ko woo sax. Euh, di ko wax ni di ko di ko di ko yónnee nuyoo si man wala whatever quoi. Mm-hmm. pour dire que ne on en train de d' atteindre un nouveau public boo xam ne amuñu ko woon et loolu ñu ngi ci sant yàlla. d' accord Doolay pourquoi tous les reggaeman ont des rastas c' est une identité ou bien. non so loolu je pense que ne euh, c'est c'est c'est c'est c'est pas forcé parce que gars yi dañu naan don't have it right to be rasta it is a conception of, the herd. Mm-hmm. that's not dreadlocking mooy def nga nekk rasta non non non loin de là. parce que rasta c'est une coiffure africaine man par exemple su ma defee rasta ça ne veut pas dire que damay def reggae moo tax ma def rasta mais rasta yi bi ñuy au fait la bonne information rasta ça vient de l'Afrique c'est quand les euh, Jamaïcains ont voulu ressembler à leurs ancêtres mm-hmm. africains qu'ils ont arboré des dreadlocks mm -hmm. mais rasta c'est purement africain am na ay guerriers Kenya yi nekkoon fii ñoo xam ne dañoo defoon ay rasta ñoom la maale di woy ci Buffalo Soldier ay mm-hmm. rasta lañ defoon te loolu noonu du tey. loolu waxaguñu sax ay reggae affaire yooyu noonu. pour te dire que ne rasta fii la bawoo. Mhm. léegi nag après gars yi bi ñu demee fële dañ doon xool ay photo di gis seen maam yi ñu bëgg nduróog ñoom ci lañ def ay dreadlocks. Mhm. comprendre nga. Mhm. kon tey par exemple benn maam Cheikh Ibrahima Fall dafa amoon ay njañ. comprendre nga même gars yi sax dañ koy wax naan yonent yàlla salaahu salaam dafa amoon ay jañ lañ koy waxee nañ karawam dafa dafa guddoon quoi. pour dire que ne karaw nii si nit lu yàgg la et karaw sax benn benn instant ci góor yàlla dañ naan dañ naan ngëneel la parce que voilà parce que parce que dafa am benn sër suru benn mbóot bu si nekk. Mm-hmm. voilà pour dire que ne ça n'a rien à voir. mën nga def say ñaata at la am ci yow. Mm, bon dreadlocks yi ça fait plus de dix ans. ça fait plus de dix ans. des euh. fois pas envie de de l'enlever. Euh, sama identité laa. Mhm. parce que dafa bokk si man. Mhm. et ñu bëri xamee nañ ma ko et dama am benn copain boo xam ne <laughs> c'était c'est un artiste puisque de wise ma clashaale ko sax ko ci de moom amoon na sound bu nice bu mu defoon boo xam ne. Mhm. Euh, ci la ñu bëri découvrir woon il avait des dreadlocks nii. mais dafa jékki-jékki rek dagg ko bi mu ko daggee nag. ci la ah. gars yi xàmmeetuñ ko. pour dire que ne. artiste da nga am benn look benn style benn affaire boo xam ne moom ngay dégager à travers image. léegi nag su demee par exemple bu bëgg gars yi xam nga bu wala bu ma bëggee def noonu mbalax maan peut-être dinaa ko dindi. <laughs> di jamono bii boo xool aussi mais jili nee nañ tam rest ragemaan ni ak restamaan yu ci ëpp dañuy. il fume de l'herbe c'est vrai. dañuy tux yàmba. <laughs> <laughs> non loolu moom c'est relatif personnellement non man je fume pas je fume de la cigarette. non je fume pas. non man man man je fume pas. non je fume pas man je bon man xam nga man je suis une personne très démo démo démocrate. Mhm. parce que je me dis que nit ki loo man man du ma nekk par exemple nit li muy def ma koy ŋàññi nit ku nekk li ngay nekk. am na loo xam ne yow yaa ngi ko ci sentir loo xam ne yow rek yaa ko ci sentir. Mm-hmm. mais man moom franchement su may wax samay xarit samay samay ñi ma ko xamee sax yenn saa yi da ngay gis yenn copain sax suñu toogee si jotaay bi ñu tox dañu jóg génn mm-hmm. man la cigarette sax parfois ça me dérange quoi. Mm-hmm. laa nag leneen. c'est un choix à moi. mais ce que lu lu gars yi di dundee yenn euh, rase yi ñiy tuddee seen bopp ay rasamaan boobu euh, nga xam ni dañ koy dund quoi parce que rase euh, dund la. est-ce que yaa ngi dund dund boobu nga xam ni doo lekk yàpp yow. végétarien. xam nga loolu c'est c'est c'est pas une religion mais c'est plutôt euh, benn benn waa benn concept la quoi. benn concept la dañ naan that's a manner of living maanaam manière de vivre la. boo xam ne les Rasta l'ont adopté mooy li may wax rek à chaque fois on doit convoquer l'histoire et la bonne histoire. rasta yi lan moo tax du ñu lekk yàpp moom mooy bi ñu demee neg marron yi par exemple bi ñu leen envoyé euh, ci ci bi ñu leen jëlee déporté leen jëlee leen Afrique yóbbu leen euh, ci Caraïbes bi bi ñu demee foofu ci ay àll lañ nekkoon ci jungle dafa amoon ay animaux yu forest féroce yu nekkoon foofu. Mhm. mais bizarrement animaux yooyu noonu lekkuñu leen reyuñu leen. Mhm. léegi nag ñoom pour rendre la monnaie ne asse à l'histoire ñoom ci lañ ne ñoom du rey duñu ñu tuur deret pour lekk. Mhm. moo tax duñu lekk yàpp. histoire boo xam ne concerne les rastaman ñi nga xam ne ils vivent la philosophie rasta man personnellement spirituellement parlant je vis pas la philosophie rasta comme ni ko benn jamaïcain di dundee parce am na sama religion tamit sama sama sama la laay laay la boo xam ne au lieu gars may téye téye téye par exemple pour jàpp daaj pour pour pour may téye euh, benn joint nii benn joint tox ko mu téye sama kuréel sikar moo may yéegal samay daaj daal. D'accord. est la source d'inspiration de Doudou Laye ma source d'inspiration c'est mon quotidien. Mhm. damay dox yenn saay damay neex man par exemple su ma toogee ba ay tàkkusaan wala yooyu su ma toogee defuma dara sax damay jug sol samay daal génn di dox. di mhm. xool di observer. loolu rek parfois ça m'inspire et ça me permet mu dem jënd benn café nii naan waxtaan ak nit ñi. Mhm. ça permet nga mën a xam. nga mën a xam nit ñi lan la ñuy jàmbat lan la ñuy wax pour yow tamit boo toogee nii loolu dina la mën a inspirer wala ay nit tamit. Euh, par rapport ak yenn affaires yi nga xam da nga koy gis sur les réseaux sociaux parce que je suis très connecté. Mhm. dañuy gis yenn histoire yi nit di la ko raconter wala yooyu. yu ci bëri après loolu noonu dalay inspiré pour yow booy bind wala booy def dara di nga mën a xam ne am na loo xam ne soo ko bindee rek dina am ñu mu laal dina am ñoo waxal. Mhm. moo tax man man man loolu mooy sama source d'inspiration. tu les partages mhm. c'est moi qui les fais. après doo demander avis la plupart euh, j'ai un staff am na ñoo xam lépp lu ma def balaa ma koy génnee dama leen koy jox ñu déglu ko. Mhm. ku mel ne par exemple un grand comme Jeannot Mendy instant il est en France mhm. moom à chaque fois musicalement parlant daf may daf may daf may déglu. Mhm. et mes textes euh, modestie à part par exemple euh, un texte comme euh, comme même un un ami euh, un un collègue professeur de france boo xam ne doon na ko jàngal ay élèves am di ci def étude de texte. te man maa ko bind. pour dire que ne musique. bind bi daf ci am solo man je du may bind moom dama ko dama ko privilégié quoi damay damay damay toog ma ma bind loo xam ne au moins dina am dina am benn benn benn benn sens et dina ku ko déglu dina am lu mu la jëriñ quoi te je respecte aussi yenn normes yi par rapport à l'écriture duo yi nga mës a def yëpp ban moo la ci gën neex duo yi mhm. hmm. bon je peux dire que ñaari son yi nekk si si kii yëpp bu ci nekk neex na ma parce que bu ci nekk daa am benn histoire bu nekk si ginnaaw. Mhm. j'ai eu à nag pas mal de de mhm. mais ñaari ma def ni mu génn récemment yooyu neex na ma trop. parce que Ali Baba on a vécu ensemble période yi ma nekkee Guinée yëpp ñoo nekkoon man moom. Mhm. Ombre aussi euh, c'est un ami. un bien boo xam ne su may joué day ñëw suy joué day dem sama sorti album. dama koy faral di wax Ombre ma dafa ma defal loo xam ne. bon je peux dire que ne daf may marqué ba léegi quoi. Mhm. imagine toi yow sa sa sa sa sa soxna. Mhm. am am bébé le lendemain du laay di jouer nga jug bàyyi ko fa dem ci concert ba. Mhm. loolu noonu c'était quelque chose de fort ci man. moo tax euh, ba léegi nii dama ko ko teel et voilà dama koy delloo et voilà maag moom on a de très très très bons rapports peut-être le temps nous permet pas de se fréquenter parce que moom chaque instant aussi mu ngi ay mbiram mais on est toujours en contact et à chaque fois suñu gisante suñu saafonte lu lu rëy moo fay judd quoi. si c'était à refaire. Mm-hmm. ou si l'histoire se répétait tu serais artiste. oui man j'ai pas de regret parce que. Mhm. nit ki su fekkee da ngay def loo xam ne da ko bëgg. comme ni ni may gisee benn proverbe euh, bouddhiste muy wax mu ne su fekkee da ngay liggéey liggéey boo xam ne da nga ko bëgg. Mhm. à chaque fois à chaque jour day mel ne liggéeyoo. Mhm. parce que day noonu lu naturel ci yow mais su fekkee liggéey boo xam ne yow bëggoo ko dañ ko forcer wala dara day dafay diis ci yow sax. parce que de de voilà doo ci am satisfaction. mais li gën a am solo daal moom mooy satisfaction boobu et man lépp lu ma def dama koy assumer. Mhm. et j'ai pas de de regret vraiment. ji. événement yi. Mhm. ginnaaw bi nga génnee EP bi. Mhm. mun na xaar ay événement oui. parce que instant bi nii en février ñu ngi waajal benn concert. Hmm? ñu waajal benn concert de lancement de live de concert de lancement de l'album après ça aussi euh, y a des des des des des des mhm. yoo xam ne bëgg nañ ko def euh, ci ci ci région yi. dem mhm. euh, à la découverte euh, benn dem gars yi gën a découvrir projet bi. Mhm. suñu jugee si région yi aussi sous région bi war nañ fa dem war nañ dem en Guinée def foofu benn concert. Euh, dem en Mauritanie par rapport au contact qu'on a en Gambie aussi on doit y aller bon pour dire que ne on a pas mal de projets par rapport au concert yi ñu war a donner pour un peu faire connaître le projet Doulaye Doulaye a un public à l'étranger d'habitude da ngay faral di fa dem di def ay euh, prestations Oui, parce que euh, je peux dire que à l'étranger euh, le reggae marche bien là ba Mm -hmm. gens aussi man je peux dire que ne su ma dugalee par exemple benn iTunes sax ñi jënd samay son wala la plupart ils sont de l'autre côté. Mm -hmm. Et euh, je je j'ai beaucoup de de d'interviews yu may def yoo xam ne aussi c'est des radios yoo xam ne c'est en France. Mm -hmm. Parfois ay yenn radio yoo xam ne ay États-Unis lañu nekk wala whatever. Euh, pour dire que ne euh, là-bas aussi bon am na ay gens ay nit ñoo xam ne ñu ngi ñu fay suivre. instant bi nii l'été prochain incha allah Euh, on, on a prévu de, de, faire des choses là-bas. Mm -hmm. euh, veux pas vendre la mèche, euh, parce que, comme on dit, il faut euh, prendre les choses molo molo petit à petit. mais instant yi ñu ngi si ñu ngi di tisser ay ay ay ay ay pour mën projet bi ak projet bële yëpp ñu boole ko. fusion bi def fa ay concert yu nice incha mhm. du Sénégal est-ce que di ngeen di dajaloo di xool ce qui marche ce qui ne marche pas dans votre secteur. bon je peux dire que. genre non. vous avez association am na amoon nañ ambition bi il y a quelques années. gars yi taxawal nañ ko mais le suivi manque. parce que mhm. dajale ay artistes dafa métti Mimi. Mhm. c'est très c'est très très très difficile c'est pas spécifique au reggae mais artiste en général parce que artiste da gis ku ci nekk loolu mooy ñun suñu problème au Sénégal ku ci nekk da ngay bëgg voler de tes propres ailes teg say mbiru bopp. Mhm. artistes yi dañuy xaw a ragalante sax be instant dañuy xaw ragalante dañuy xaw a mel ni mbëri quoi. <laughs> tu vois du coup euh, c'est un peu compliqué ngeen di bokk di sottante xalaat di wax parce que da naan sax non man su ma yu demee yóbbu sama xalaat. Mhm. diw mën na ko jël jëfandikoo ko wala whatever dafa bëri daal ay ay yoo xam ne gars dañ koo am te mhm. loolu ñu jëmale kanam mais loolu moom ce serait une bonne chose parce que doon naa si waxtaan sax ak gars ma ne leen il faut qu'on se ñu jéem xool naka la defee pour avoir au minimum. Mhm. annuellement artistes yi côté économique bi ak retombées yi yéen a ngi ciy jot. bon oui parce que soo xoolee euh, léegi c'est pas la communication bi nii moo des mais la communication digitale aussi dafa am solo. Mm-hmm. par exemple ñun bu ñu génnee suñu projet bii nii New Brace. on a innové ñu def ko ci carte mémoire. Mhm. nga xam ne c'est toujours dans le digital. Mhm. et aussi on a un service de livraison moo xam ne képp nga xam ne soxla nga projet bi dañ la koy yóbbul à domicile. Mhm. et yooyu yëpp innovation la yoo xam ne def nañ ko et waaw nit ñu ngi koy jënd et ñu ngi sant yàlla ça va. d'accord alors euh, tey jii bu fekkente ne ni que yow buñ la joxoon réew mi tey. ah <laughs> loo fi instauré <laughs> et et qu'est-ce qui te aussi ci Sénégal jamono yi ñu toll. bon man li ma fi li ma fi in je peux pas dire que ne lii laa fi instauré parce que <laughs> parce que instant bi man def ma politique j'ai beaucoup beaucoup beaucoup d'amis politiciens nag. Mhm. yoo xam ne dañ may tooñ. ne ma du laa yow man je pense plus euh, faire dans le mouvement associatif. Mhm. association yi yooyu yu bëri dans pas mal d'associations pas comme membre euh, permanent mais parfois comme membre d'honneur wala des choses comme ça. Mhm. yoo xam parce que le temps parfois ne me permet pas de de mais chaque fois association yenn yi bu ñu amee ay manifestations yooyu damay dem teew. voilà joxe sama contribution def li ma war a def. mais je peux dire que ne bon je suis plus dans le dans dans dans ce volet là que la politique parce que la politique moom franchement pour le moment j'ai pas d'ambition pour faire de la politique. ça me dit pas grand chose. Euh, j'ai pas mal de copains yoo xam ne ils sont ils sont ils se sont engagés en politique ils me disent que toi tu communiques bien et tout tu as les diplômes toi tu as tout ce qu'il faut pour faire de la politique et euh, voilà pour euh, pour t'en sortir. mais pour le moment c'est pas dans mes ambitions mais daal li may wax moom mooy euh, il faut que les politiques pensent à instaurer la discipline mm-hmm. Mm. et surtout le savoir-vivre mm-hmm. parce que démb rek maa ngi koy wax ma ne gars yi du affaire bi du religion rek parce que tey ñun suñu dëkk yi am na lu bëri loo xam ne am nañ ko à travers suñu baaxi maam yi mm-hmm. c'est-à-dire dañ la naan ngor jom fit fulla fayda ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp ay vertu la yoo xam ne suñu maam yi amoon nañ ko te ak surtout kersa mm-hmm. te yooyu noonu yëpp dafa nekk di commencé wàññeeku da ngay gis nit ñi par exemple nu ne du laa yow tu es cool non c'est pas que je suis cool je suis pas parfait ah mais euh, au moins savoir vivre dafa dafa dafa baax. jox cër nit doomu aadama booy wax ak nit da ngaa am noo war a waxeek moom. Mm-hmm. yooyu noonu yëpp boo gis benn nit daal di lekk sànni ci mbedd mi dafay am ay yoo xam ne bon c' est de c' est pas digne d'un être humain je peux dire. Mm-hmm. ah dafa am solo gars yi nañu gën a accès loolu te aussi ñuy def sanction. Mm-hmm. parce que il y a trop de laisser aller dans ce pays là. les gens doivent euh, plus sanctionner parce que sanction aussi da si baax imagine toi koo xam ne dafay ñëw sànni benn affaire. ci mbedd bi ñu ñëw ne la ay saway ne la nip jàpp yow de jàpp kii léegi pendant deux dimanches dinañ la jël si sa kër wala nag ñu fekk béréb sàngam nga ñëw ñu ànd da nga war a dem bale ji fële xam nga bu ñu la ko defee benn yoon ñaari yoon doo doo ko sànneeti bu ñu xamee ne ça c'est en application te am duñ la dóor duñ la saaga duñ la def dara noonu rek lañ lay def dañ la naan saa yi dimanche prochain yi jël nañ sa affiliation sa carte d'identité sa ñii yëpp léegi tu nous rejoins à l'endroit tel mm-hmm. te doo sañ a bañ a ñëw créer benn police euh, citoyenne mm-hmm. une police citoyenne qui va penser à na sax parce que da ngeen naan service des jeunes mm-hmm. mais dañ ko war a gën a gën a dooleel jox leen les moyens pour que loolu noonu ñu mettre ko en application d'accord alors euh, euh, en quelques secondes Que peux-tu, que peux-tu nous dire de ton enfance? C'était comment ou bien un enfant qui faisait beaucoup de bêtises? bon je je veux dire que ne man peut-être comme on di bërigo la plupart suy root. day dem ba benn instant da ngay da ngay avec la maturité avec euh, le vécu l'expérience. Mm-hmm. aw ma ay âge yu bëri noonu quoi mais dama jot a dund lu bëri. dem fu ne gis lu ne. Mm-hmm. moo tax je peux dire que ne léegi je suis plus euh, introverti. Mm-hmm. et je suis plus posé quoi mais quand j'étais plus jeune moom. <laughs> c'était c'était gën neneen la demee woon quoi voilà donc keroog rek maa ngi siy tooñ sama élèves yi di si waxtaan ak ñoom. Mhm. ñu ree naan waaw monsieur kon noonu noonu ngay ma leen waaw mais avec le temps il faut que nit ki nga xam nga nga nga change quoi changement yi mhm. euh, nga moo di. et jeunesse ko war a dund pleinement man loolu laa gëm boo nekkee jeune da ngaa war a yëngatu. Mhm. da ngaa war a stop da war a di lijjanti parce que loolu mooy tax nga xam loolu mooy tax ngay laajte ku dul laajte doo xam man noonu laa meloon lu ma gis dama ko daan benn anecdote su ma suñ ma joxaanee nii sama sama kii. sama euh, fourniture par exemple temps yii maa ngi primaire ah. ñu ngi dëkkoon côté Colobane. déjà ban école nga nekkoon. temps yii noonu maa ngi woon euh, fële Imam Abdou Ndiaye. Mhm. benn école la bu nekk entre euh, cité douane la laa dëkkoon. Mhm. entre bopp ak ñaari tali. Mhm. mu jugee foofu dem Blaise Diagne jugee foofu def dem am am bac de la fosse suñu ma joxaanee sama fourniture temps booy dama daan xool livre yi ma amoon daaw dama ko daan dajale yëpp. jël ko dem si sam dem ci paa bi paa bi ne ma ne na ko li paa paa da doon jënd ay kaye jox na léegi livre yi noonu laa daan def dama daan xool livre yi ma utiliser wul damay dem kolobaan foofu ci parterre yi damay dem ma jaay ko man personnellement maa koy def dama koy jaay su ma jëlee xaalis boobu noonu ma xool yeneen livre yi nga xam ne moom dama koy soxla te beneen classe supérieure moo kii xaalis bi ma daan am noonu dama koy jël ma jox ko waa ji di nga xam ne moom moo moom moom moo nekk si parterre bi. pour dire que ne mu daan dugal livre pour am les livres de de année bi ma war a jànge voilà noonu laa daan def saa yi ma ko defaa ne su ma ñëwee kii ko paa bi daf may xool rey ne ma cey yow yaa sobte mm-hmm. affaire yooyu mais c' est bien c' est bien faut continuer comme ça. Mm-hmm. man noonu laa mel à chaque fois j'ai entrepreneuriat moom. noonu la te te te réglo quoi. je je je peux je veux pas dire réglo mais. <laughs> réglo réglo non parce que j'étais très perturbateur euh, surtout ma nekkaanee classe nii affaire su ma naan dama naan man maa naan xumbal classe bi mhm. man ni nga may gisee nii nag je suis très en public je suis très très très cool quoi mais euh, en privé parfois dama mën a tooñ dama mën a perturber dama mën a mbalak dama mën a kii quoi noonu laa d'accord <laughs> voilà question. sama dernière question fii Doulaye pochette bi boo xoolee pochette album bi. Mhm. muy 4 mémoire bi fii yaa ngi toog ci chaise buur bi. Mhm. toog ñëpp euh, sa loxo fii si ginnaaw buñ ko xoolee. chaise mhm. kese moo fi nekk. lan nga bëgg wax fii. voilà foofu noonu waaw concept yi waaw loolu da ci am solo parce que conception wu jacket bi euh, man maa ko def photo bi c'est un Talla Prod moom moo ko def léegi comme Doolay Prince la ñuy wax Prince Prince moom mooy ki nga xam ne par exemple bu subaa bu fi ñoom Alpha Blondy ñeeg ñoo ñëpp jugee benn Doolay war na ñëw mën a jël jël flambeau bi mm-hmm. benn Omreza Yane benn Ali Baba beneen parce que àdduna noonu la continuité la mm-hmm. moo tax ma toog noonu ci chaise ah te tegale samay tànk toog daal di yëkkati sama loxo aussi pour wane booloo gi waaw ci ginnaaw foofu noonu y' a personne y' a que la chaise. Mhm. pour montrer que ne sound yi bu ñu ñëwee toog foofu dafa mel ne man maa fa toog. Mhm. voilà parce que sound yi ñoom ñoo ñoom ñoo ma remplacé parce que ñoom ñoo may représenté foofu. Mhm. moo noonu laa ko defee. ok Doolay est un cœur à en ce moment. Euh, <laughs> yow ndeke amoo soxna. amaguma mais mais mais mais ñaanal leen ma rek yàlla baax na amaana 2020 bi ñu bañ ko génn ko incha allah. yàlla baax na. merci en tout cas on bonne chance. avec les filles c'est moi qui vous moom euh, samay xarit lañ gis nga sax defal naa leen sama jigéen. man moom jigéen moom. jigéen dama leen mais sa classe yi amul xale yu lay piis xam nga xale yi léegi dañoo. dañoo mais xam xam lu nekk ak jamono. na loo ci dund. bien sûr nous, nous sommes tous êtres des êtres humains ñëpp ku ci ah. nekk am na ci benn ruq boo xam ne yenn saa sa jardin secret quoi <laughs> comme on dit voilà am na quoi loolu mënul ñàkk parce que ñun ñëpp toll nañ ci te voilà ay dañuy dund quoi te ay jeunes lañ aussi. Mhm. da ngaa war a labat pour takk. Mhm. loolu dafa dafa dafa jaadu quoi. kon baax na mais yàlla baax na. <laughs> alors le dernier mot. le dernier mot je vous remercie euh, maa leen di big up di leen jaajëfal yow Mimi. Mhm. vraiment c'est c'est c'est un plaisir de te revoir. <laughs> ak Jili aussi c'est un frère c'est un ami de le de de le voir ici maa leen di remercier ci invitation bi ak plateau bi ngeen ma permettre ma mën a échanger auditeurs yeeg auditrices yi ku ci nekk aussi maa ngi lay nuyuwaat di la jox sa wàccuwaay. Mhm. la naan Doula ngi noonu mën ngeen ma suivre euh, à travers les réseaux sociaux D2O LAY Prince comme voilà comme vous l'entendez. Mhm. et je suis très actif si vous m'envoyez un message je réponds euh, ou bien si je réponds pas personnellement il a des gens qui vont vous répondre et voilà. maa leen di big ku bëgg album bi il a euh, un service de livraison. Mhm. boo xam ne ku woote ci 77 049 47 22. dañ la koy indil ba sa kër. comme ça voilà soo so soo boo ñëwee rek di nga si jot di nga mën a jël carte mémoire bi rek def sa téléphone wala nga def sa ordinateur mën a jot ci son yi. alors ji tàggool. rendez-vous lundi incha allah Galsen Paw. <laughs> Rewmi People samedi prochain jaajëf. d'accord merci beaucoup on fait aussi un clin d'œil au, euh, au bras droit de de Laye nu mu mais bëri na titre <laughs> en tout cas merci d'avoir accompagné notre star du jour Doolay Prince alors comme euh, il a dit new brief amis auditeurs ak ñëpp ñi nga xamante ne ñooy bëggee Doolay donc euh, mën ngeen ko am il a de très bons son donc euh, je vous je le suggère je vous le conseille kon nii rek lay incha allah ñu toog fi ak beneen star merci d'avoir été avec nous très bon week-end chez vous.